yow ay noonu da ngeen foo toll. li ngeen ni léegi deuxième tour deuxième tour mënul am ndax Macky a appelé 62 pour cent. waaw mais ñu du seen borom. daf leen di caravasser daf leen di caravasser da leen a duma duma yi ne dafa leer ma ne Dakar Macky gañe fépp. te Macky sama xarit la ma bëggoon mu def mandat même bu dee benn mandat mu génn ceeg normal dem dans la dignité comme Hollande Hollande benn mandat la am day maanaam xam ne il n'est plus populaire. nga boole borom Dakar maire bi Khalifa ak Idi partout Macky leen. ñii duñu ay démocrate te man man xaw ma lu tax ñuy jaay doole nit ñi man dama gis xaw ma Macky Sall lan lu xew. nga dem Guédiawaye Macky jël lépp nga dem Pikine mu jël lépp nga dem Mbour mu jël lépp nga dem Tëngéej mu jël lépp. nañ dem laaj Hollande ndax ñeemoon na présenté wu xalaat premier tour. ñoom Hollande bu nekk di intelligent. ah kon Sarkozy moom demoon na gars yi dóor ko mu xalamu Daara bu jël lépp nga dem Daara Mousty mu gañe ko nga ko nga dem Karang mu gañe ko Nioro mu gañe ko waaw fu dees ku ànd man ma jéem la mbugal mais yàlla mu ngi seetaan Bokassa premier nekkoon na fi de Mamadou Sédé Seko nekkoon na fi de Kadhafi nekkoon na fi de Gbagbo na fi de ak pouvoir ñu naan ko ku ñëw rek moom mu réelé ci farine bi nax léegi kon fii benn mandat fi am ren ah oui France ñaari ñaari président ngi benn mandat rek muy Sarkozy muy Hollande léegi léegi léegi jurisprudence France bu France moom defe naa yàlla moo bind loolu lu leen dara dal ñu. dara du ci dëkk li ngeen ni léegi deuxième tour deuxième tour mënul am ndax Macky a appuyé 62 pour cent. loo xalaat ci transhumance bi <laughs> loolu day la waar de. man affaire ñàkk jom amu seen jot man ñu ñàkk jom amu seen temps. magistrat yi daal. ndax attekat yu bëri safara la ñuy dem. ah bon ndax loo atte fii da nga koy attewaat mais mu ngi alxuraan.